ngeen déglu asalaamu aleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi nuyu sëriñ bi di la ñaanal yàlla yal na yàlla bàyyi la fi ba sa kanama kanama kanama kanama te nag yàlla tafal si ak wér sëriñ bi ñii teew mooy ñi nga xam ne ñooy yëngatu si woto muy ñiy dawal woto ak ñi ko moom ma ne ñii ñooy ñiy dawal oto yi waaye ñooy ñi moom oto yi waaye mooy ñi nga xamante ni ñooy jaay pneu yi ñi nga xam ni ñooy jaay pièces détachées yi ñu ñoo daje li daga fongali mi ba fii benn responsable desul Mbàkke nag fii nga toog ku ne dina la fi fekk Mbàkke waaye yàlla dogal na xàmmee nga ñëpp kon wax ji du woon ko jaral duñ ko jaral waaye nag lu ñu lay xamal ni ay ay taalibe donc ñoo fi ñëw te bëgg a doon nag ay saadix nuy ñoo xamante ne dañuy góorgóorlu te doole yi bariwul te yàlla dogal buur ay dooleem bari ak i pexem ñu xëy xëy nag teg nu loo xam ni attanuñu ko ndax ñaar fukki point ak ñeent yu ñu teg mbàkke ku dindi woon ayib yu toll noonu ci Alassane yi jëmma dootu fa des te loolu nag bu ñu demee ba koy teg ñoo xam ne yaag ñoom yéen a bokk ab liggéey dafay laaj nga woo waxtaan ak ñoom lii nga xam ni moo xew barki démb nag loolu dafa am loo xam ni xej na si nun la waaye am na ci loo xam ne si ñoom la mbir nag bu xewee kenn ku nekk am loo ci am responsabilité da ngeen di bokk daje kenn ku nekk la nga say def te bokkul sa loo war a def nga bàyyi ñoom nag dañoo jël lépp teg nu bu ko defee nag su yekkee ni loolu ñu nu teg waxtaan na nañu waxtaan mënula sotti ab syndicaliste lay dooleem mooy mu téye ab liggéeyam ba ñu xam ni am na njariñ ci dëkk ba bi ñu ko defee nag ñoom wax nañu ni loolu ñuy def teguñu ko ci aw yoon te fekk booba ñoom la ñuy def moom la ñu tegul ci aw yoon booba ba léegi nag ñu ngi waxtaan ak ñoom waaye nit su la nee teg naa la ñaar fukki point nga ni ko naan daje waxtaan da nga naan lii ak lii ak lii kat mën naa ko teggi mun la lii ak lii boo ko teggee nu déggoo waaye ñaar fukki point ak ñeent yi leen teg dara mënu see dañ loolu boo ko dee def nit ak waxtaan boo moy du ngeen déggoo Mbàkke nag ñu jub màggal ñoom ñoo ñu nga xamante ni bii ñoo ñu ko teg bii ba min wi nu ngi toog ak ñoom nu li leen màggal gi day jub te nun ñi ñëpp kenn ku ne war nga faa dem war nañoo bàyyi nit ñi ñu dem kon bàyyi leen dara nu bàyyi dara nu ñu ñu ni virgule duñ ko teggi ci lu ñu leen teg loolu nag Mbàkke kon ñu ni nañu ñëw wax la ko yow mi nga xam ni nag képp kuy wut dara yaakaar na ci sam dimbal li ñu teg metti na yàlla jox na leen karta nag waaye delloowuñu yàlla njukkal ndax toll nay jamono ñoom ñu ñu ko teg ëpp ñu nu woon kartan waaye dañoo dajale suñu a jox leen ba ñu am kartan bëgg nu ko jëfe suñu kaw Mbàkke nag ñu ñëw pour wax la nga wax ak ñu nu ko teg ba saludu yooyu giir du dem ak neen mbakki toogaay bi yàgg na waaye nun ay donga la ñu doon yoo xam ne duñu fi yàq kenn ndax ñëpp noo bokk yem waaye ñëpp noo bokk yem si yow ñu wax ni nag ku ne dina la fi fekk waaye nun daal ay taalibe lanu bëgg a doon bëgg nañu nag li ñu nu teg bala ñuy delluwaat su lu mel nii nu siy déglu sa ndigal loolu si sant nag loolu la ñuy def mbakki maa ngi leen di ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant Sénégal nag a ngi nii Sénégal a ngi nii kenn desul ndax bu ñu nee oto porte bagage dootu ci tegu ak Sénégal ni ñu xamee seen culture kuy tukki di nga am loo waaw kuy tukki te amoo amoo yor dara porte bagage amul foo koy teg bu ñu nee oto dootu daw guddi te guddi nit ku nekk ak soxlaam ak fu mu toll ñu ni oto dootu daw guddi loolu fu ñu koy teg gasoil benn litre bu nekk ñu teg ci ñaar fukki dërëm te nuy commerce fu nu ko fu nu jëm loolu moo tax ñu ni nag yow teg-teg yooyu bari na te attanuñu ko teg-teg yooyu nag ñu ni teg la lay ñaan mbàkkee ñun bala ñu si jéemati dara nga dimbali nu si teg-teg yooyu ñu tegge ko nit ñi mënuñoo bañ dem guddi oto mënu la bañ a am porte bagage gasoil wi seer na yooyu nag teg-teg yu bari ñaar fukki mën naa la koy limal ñaar fukki point ak ñaar yu mel noonu benn nit buy liggéey di góorgóorlu attana ko kon Mbàkke ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu Macky Sall mi nga xam te ni bii moom moo yilif ñu nu ko teg te ñii nu ko teg nag ay gone yu tuuti lañ yoo xam te ni bii suñu kanam lañ juddoo te daanaka mën naa laa wax ni ni ñu ko defee lépp dara teguwu si aw yoon nag te xam nañ ci lu bëree bari waaye ñun bëgguñu fee ñëw di yàq kenn parce que boo demee tey jii ay bu ñu wax si ñoom mu ngi si ñun waaye moo tax nitam ku ci wax ayib si ñun lu mel ni li si mu ngi si yow kon Mbàkke ñu ngi lay jébbal mbir mi kàddu gi nga dimbali ñu te yàlla tax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm asalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Aliou Ndoye sëriñ Alsaan Ndoye sëriñ bi dégg na kàddu yu baax te teewlu na ko it te kàddu yi li nga wax lépp dégg na ko di wax ne mi ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin mi ngi leen di delloo am nuyoo yéen ñëpp comme ni nga ko waxee ci biir wax ji njaboot gépp ak njabootam lañ kon lépp loo xam ne tey njaboot gi la mu jëm ci rawatina lu jëm ci wàllu réew mi moom mii lépp loo xam ne mën na ko ci dina ko def incha allah rabbi la ca jiitu mooy ñaan te ñaan mën naa defar lépp kon na seen xel dal bu baax a baax la ca topp mooy li mu bëgg ba di ko digle mooy coowlawul kenn. yàquloowul kenn na ngeen na ngeen fexe ba tege ci aw yoon lépp loo xam ne war na ko ci diggante ak état muy loo xam ndimbal la lu jëm ci réew mi incha allah rabbi dana ci jug taxaw ci ba lépp am jàmm incha allah rabbi kon moom jàmm rek la soxla jàmm rek lay ut kon na ngeen dal seen xel lépp loo xam ne mën na ko rek incha allah ci kàttanu yàlla dana ko def te loolu rek moo yitteem kon na ngeen dal seen xel sant na leen nag. na na ngeen xam ne loolu yëpp defar rek moo ko waral te moom mii defar rek moom mooy li ko fi bàyyi waaw kon na ngeen xam na ngeen xam loolu defar rek moo ñu fi ni waaye defar mooy ki nga xam ne moo fi bàyyi Serigne Touba Serigne Mountakha mii ku ko xam ci defar rek nga ko xam ku ko xam ci lu baax rek nga ko xam ki ko xam ci boole ay jaami yàlla rek ci lu baax moom rek nga ko xam kon na ngeen dala seen xel mu ne kàddu yi dégg na ko lépp loo xam ne muy coonal ak lu mën a doon lu agsi ci moom incha lépp lu mu ci mën ci kàttanu yàlla des des na jóg taxaw ci ba jàmm am ci incha allah rabbi rafet mi ngi rafetlu nag seen taxawaay ak seen jéego yi ngeen def ba agsi ñëw fii ci kanamam dooni ay taalibi sëñ Tuubaa di sàkku ci moom ndigal ak ñaan kon mu ngi leen di ñaanal suñ borom kàttanal leen may leen ak wér ba ngeen gën a mën a sax ci liggéey sëñ Tuubaa bi kon n ñëpp tàll seen loxo bismillah bismillah fii niin ak daala yàllaaw sawi baqa abi di fiiq yàllaaw